ganu suba si euh, di euh, ma Fall moom moo jiite fédération association yi nga xam ne ñoo ëmb wala ñoo njaboote euh, bépp nit bu am way laago monsieur Fall ñu ngi lay nuyu di la dalal maa ngi leen di fay bu baax di leen fay. di la dalal tey ji nga xam ne ñoo ngi waajal suba 3 décembre bés bi ñuy màggal euh, bés bi ñu jagleel ñi yor waa waa euh, ñi nga xam ne euh, des personnes en situation de handicap la tey màggalu bés bi lan la doon ci yéen. waaw xam nga bëccëg bi di trois décembre. Mhm. moom la mbootaay xeeti jagleel way laago yi ci àddina bi yëpp. Mhm. at mu jot ñu war ko màggal mu nekk jamono yoo xam ne ay jamono yu am solo la. ci ñun ñi nga xam ne dañu amee laago ndax day nekk occasion pour ñu ñëwaat ci suñuy jafe-jafe ñu ñëwaat ci suñu nekkin ñëwaat ci ni ñu toogee ci bis société bi ak euh, ni ñuy toppatoo. Mm-hmm. kon nag euh, mu nekk bis bu rëy rëy boo xam ne àddina bi dañ koy màggal Sénégal aussi at mu jot mu màggal ko te boo ren mooy ñaar fukki ak juróom-ñett ñuy màggal bëccëg boobu. Mhm. ngeen fas yéene ko màggalatum ren ndax am na benn euh, particularité bi nga xam ne dinañ ko nemmeeku atum ren. waaw ren xam nga thème bi ñu jël mooy une journée pour tous. Mhm. c'est-à-dire bëccëg boo xam ni. ñëpp dañ ci dem nañ ko war a bokk ñëpp dañ ci war a bokk. Mhm. léegi nag ñun li nga xam ne mooy particularité bi ren fii ci Sénégal mooy jamono yi passé fédération bi. ëmb mbootaay way laago yi ci réew mi ak université de Dakar ak benn partenaire bu ñuy wax IDP dañuy commencé woon dañuy defoon benn étude bu mag def benn jàngat. Mhm. pour xool société Sénégal ban gis-gis la am ci laago bu ñu waxee société nag dafa yaatu. Mhm. mu ngi commencé ci état bi ak institution yi ñoom ban gis-gis lañ am ci laago parce que ñooñu bu fekkee seen gis-gis baaxul wala gisuñu gis-gis bi ñu war a gis xëy na politique wala initiative yi ñuy jël. du mën a doon lu baax. Hmm. mais ñu xool aussi famille yi famille yi ban gis-gis lañu am ci laago yi laago yi seen bopp bañ gis-gis lañu ñu bokk am ci ñoom ensuite ñu ñu bokkal euh, penc mi comme ni ñu koy waxee ñu ñu bokkal société bi ñoom ban gis-gis la am ci laago loolu dina tax ñu xam. Euh, préjugé li ñuy wax ci tubaab préjugé c'est-à-dire yenn croyance yi yenn xalaat yi yenn ngëm-ngëm yi di gis sax am doom mu am laago ñu ne ko euh, da ngaa tooñ yàlla wala da def ni nit dina am laago ñu am niñ ko gisee nit dina xëy di liggéey daje ko am laago daw duggaat këram ndax day bañ umu wala yu mel noonu yooyu yëpp ay croyance la ak yoo xam ne sunu société mi ngi koy def te amul benn njariñ day tax rek ñuy gën a beddi way laago yi léegi nag étude boobu bi ñu ko defee liñ ci jàngati yëpp lañu ñu fas yéene ñun ci 3 décembre bi yaatal ko leeral ko ba ñu xam ne bii gis-gis am na fi bii am na fi baax na bii baaxul nii la ñu war a doxale pour mën a indi ñi nga xam ne euh, ñooy politique yi indi ñi nga xam ne ñooy état bi ñu xam fan la ñu war a teg seen tànk pour mën a jël en compte way laago yi parce que boo xoolee Sénégal téeméer nit yoo fi jël fukk yi ak juróom dañ amee laago mhm. lim bu toll noonu nag kenn mënu leen a fegg kenn mënu leen teg de côté bu ñu bëggee développer réew mi faaw ñu boole leen ci li ñuy def loolu la ñuy wax inclusion mhm. faaw ñu boole loon ci nag mooy ñu xam ni yàlla bindul addina bi ñëpp niroo bindul ñëpp tolloo parce que bu bindoon ñëpp niroo ñëpp tolloo amaana mm-hmm. àddina bi du rafet. Mm-hmm. li tax àddina bi am charme li tax humanité neex rafet mooy yàlla dafa bind ñii nekk góor ñii nekk jigéen ñi njool ñii gàtt ñi ñuul ñii xees waaye tamit ñii am laago alors diversité boobu nag mooy def li tubaab di wax le charme de l'humanité faw ñu xam ne handicap ci élément de diversité yi la bokk bu ko defee lépp lu ñuy def ñu mën leen cee sóoraale. bu euh, loolu. Mm-hmm, waaw mm-hmm, bu loolu weesoo. Mm-hmm. fas nañu yéene aussi toujours ci bëccëg bi xaatim benn convention boo xam ne dafay lëkkale fédération bi ak ministère de l'emploi. parce que ñëpp xam nañ ne aussi bokk na ci jafe-jafe handicapé yi. Euh, ñàkk liggéey. naam loi d'orientation sociale wax na ne saa yi ñuy def recrutement ci fonction publique war nañ jël fukk ak juróom quinze pour cent war nañ ko jël ci way laago yi jox nañ leen quota boobu quota boobu respecté guñ ko yeggaguñu quinze pour cent même su fekkee ñun ñu ngi rafetlu mhm. le fait que tey ji handicap yu bëri ñu ngi ci fonction publique ñu ngi leen di gis ci ministère yi ñu ngi ci administration yi loolu ñu ngi koy rafetlu mais dañuy continuer plaidoyer bi pour que ñu yegg quinze pour cent fonction publique waaye xam nga liggéey du fonction publique rek mhm. secteur privé mu ngi fi auto emploi mu ngi fi alors pour secteur privé boobu nag moo tax fédération bi waxtaanoon ak ministère de l'emploi ba ci trois décembre bi bëgg nañu xaatim ak ñoom benn convention boo xam ne li ñuy wax convention état employeur mhm. euh, entreprise privée yëpp aussi ni état bi jëlee quinze pour cent ci fonction publique entreprise privée yi aussi mën a jël cinq pour cent personnes handicapées ci euh, secteur privé loolu buñ ko defee yaakaar naa ni lu bëree bëri bëri ci jàmbatu liggéeyu way laago yi dina dina wàññeeku mu mel ni eh, waaw mm-hmm. yéen a ngi xeex ba ca yàq ak yelleef eh, jëm ci égalité des chances bi nga xam ne njiitu réew mi waxoon na ko tey jii boo ko doon xayma fuñ ci toll. waaw loolu aussi d' abord li ñuy def mooy njëkk rafetlu taxawaay bi nga xam ne njiitu réew mi président Macky Sall am na ko jëm ci way laa koy ay la yéwén ko yàlla denkee réew mi ak léegi gis nañu ne mu ngi def ay jéego yoo xam ne jéego yu am solo la jëmale ko ci way laa koy surtout ci li ñuy wax lutte contre les inégalités sociales. li ñuy wax égalité des chances loolu mm-hmm. président la République def na ci ay jéego yu am solo mm-hmm. léegi nag problème bi mooy bu fekkee ba léegi ñu ngi dund ay jafe-jafe loolu li muy tekki mooy ne xëy na du ministère yi wala administration bi topp ñu bu baax njiitu réew mi ci yoon woowu leen wan loolu moo tax ñun ñu jàpp ne tey jii li nga xam ne moo war a saafara problème mu égalité de chances parce que carte d'égalité des chances mu ngi ci loi bi mm-hmm. te carte d'égalité des chances dafa war a tax euh, way laa bi ñu yombalal ko li ñuy wax accès aux services sociaux de base moo xam santé la moo xam éducation moo xam appareillage moo xam service de réadaptation moo xam formation professionnelle moo xam emploi moo xam transport ak yu mm-hmm. waaye tey jii gis nañ ne carte d'égalité des chances bi am na depuis deux mille quinze juróomi at waaye boo xoolee handicapés yi toll nañ ci ñetti millions ci réew mi parce que de la population boo ko appliqué ci seize millions d'habitants doo sori trois millions loolu lim bu takku la. Mhm. te ñoom ñëpp war nañu am carte bi te boo xoolee ci juróomi at euh, soixante et un mille cartes rek la ñuy defar alors bu fekkee da nga defar soixante et un mille cartes ci juróomi at ci objectif bu trois millions loolu li muy wane mooy ne rythme bi koy liggéeyee yeex na donc loolu war nañ ko saafara beneen bi mooy même ñi am carte bi tey. Mhm. dañuy am carte bi mais dañuy am impression ne carte bi amalu leen njariñ pourquoi parce que service bi nga xam ne moom leen carte bi borom may service boobu du toujours koy am loolu nag comme ni ma ko waxee handicap dafa nekk question transversale c'est-à-dire li mu laal dafa bari handicap boo ko waxee wax nga transport mhm. handicap boo ko waxee wax nga éducation boo ko waxee wax nga santé boo ko waxee wax nga secteur yu bari te secteur bu nekk am na ministre boo xam ne moo koy toppatoo problème bi mooy ministre yooyu nag kenn ku ci nekk li nga xam ne mooy sa cër da nga war a def ci carte bi ba nga xam ne service bi nga yore mën na nekk service bu effectif ba woy laago bu yoree carte am am benn jafe ci transport ci santé ci njàng mi ak ci yu ni mel loolu nag li koy saafara ñun jàpp nañ ne. Mm-hmm. mooy ñu def li ñuy wax conseil présidentiel sur le handicap président de la république bu toogee ministre sectoriel yooyu yëpp wër ko handicapé yi wër ko ñu defal ko rapport dina mën a joxe ndigal li ci war. ministère yi pour ñu mën a kenn ku ci nekk mën a jouer rôle bi nga war a jouer mm-hmm. pour que service bi carte bi war a am mu mën ko am bu ko defee mu mën a amal way laa bi njariñ mm-hmm. atum ren gis moo ngi fi ba tey euh, ci wàllum particularité ndax dafa am benn traitement euh, particulier bi nga xam ne euh, waay laago yi yittewoon nañ ko wala sax jot nañ ci ci atum ren. waaw xam nga mbas mi bi mu ñëwee dafa laal réew mi yëpp laal secteur yëpp. Mm-hmm. loolu aussi waay laago yi laal na leen bu baax a baax a baax a baax ci wàllu impact. ndax ñun moo tax ñun fédération bi bi mbas mi ñëwee. dañu teg li ñuy wax benn mécanisme national de suivi ci région yëpp ak ndakaaru teg fi mécanisme yoo xam ne moo doon suivre di toppatoo ñi euh, nga xam ne noonu la ñuy jëlee en compte way laago ci mbir mi mm-hmm. ndax boo xoolee ñi gënoon a tiit bokkoon na ci ñun way laago yi ndax lu ëpp ci ñun dañu nekk ci mbedd mi di yalwaan te boo nekkee ci mbedd mi di yalwaan da ngay exposé mm-hmm. ku ne mën na laa jox feebar waaye itam mën nga ko jox ku nekk moo tax biñu ne bërët ñun ñoo njëkk wax ne suñuy ñooñ nañu confiné wu waaye nit ki bu fekkee tam li muy dundee mi ngi koy jëlee ci mbedd mi ah boo ko nee mu toog këram aussi foog nga jàppale ko. Mhm. ci mu am lu mu dundee. loolu moo tax appui alimentaire yi bi mu ñëwee. Mhm. ñu xool yaakaaroon ne handicapé yi ñu ngi ci registre national unique bi ci RNU bi ci mécanisme boobu moo tax ñu xam ne registre national bi amul handicapé yi. ñu yëkkatee sunu kàddu heureusement njiitu réew mi dégg nu daal di yokk cent mille kits cent mille kits yooyu ak li nekkoon ci ciblage communautaire bi tax na ba. fépp fu handicapé nekk ci réew mi fexe nañ ba nga jot sa appui alimentaire boobu waaye tamit xam nañ ne jàppale nañ aussi acteur culturels yi d'une manière générale mhm. foofu aussi acteurs culturels handicapés yi ay la yéwén ñoom it nañ leen seen cër jox nañ leen seen appui fi xaw a sooxe daal ci ñun mooy ñi nga xam ne ay artisans lañu ñi nga xam ne dañu roon ay entreprises yu ndaw ak yooyu nekk ay handicapés ñooñu la seen appui ñëwul mais mu ne ah waaw ñooñu moo tax ñu continuer di def plaidoyer bi pour que ñooñ tamit ñu mën leen jàppale parce que bu fekkee da nga amee laago mhm. góorgóorlu demoo yalwaani waaye nga góorgóorlu ba defar sa atelier nga góorgóorlu ba ubbi sa entreprise bu ndaw di ci daan sa doole pour am sa dignité loolu aussi war nañ la accompagner war nañ la jàppale pour nga gën a mhm. monsieur euh, monsieur Yatma donc euh, merci beaucoup